jërë ngeen jeuf mbokk yi tay ji ñi ngi ci ndax nek na réew bo ne ñent fan ci wéru décembre fas nañ dem ci li nga ne di élection présidentielle ñi ngi ci njeexitalu campagne bi ñoo am mbégte tey euh, dalal fi Mama Kandé Mama Kandé kën du ko ndax ndaxte élection yi ñu gennon nekkon na candidat jëloon ci troisième amoon ci 17% mon nek cent mu nekk koo xam ne am nañu yaakaar ci mom lol muy jité li nga xam modi congrès démocratique euh, bu Gambie euh, nek candidat nek timit kenn ko xam mom la ki fi nekkoon di Yaya Jammeh di jappalé ñu am mbégte dalal ko fas sik ak mom waxtaan honorable maa ngi lay jox cadeau bi nga nuyo latu ñuy sobu ci waxtaan waaw oh, jërëjëf um, Pape Ali. Mhm. Um, maa ngi lay nuyu di la Gerem di la wax welcome to the Gambia. Mhm. Um, di nuyu suñu mbokki déglukat pak ak fu nit ki mën da ci bi. di la bismillah rek ci Gambia mang la wax ne na nga feel at home fii sa kër la. Mhm. sa la. te ñu ngi rafetlu lool eh, sa jógee Sénégal ñëw ba fii pour bugg jox àdduna bi eh, wax leen tamit lan moo nekk Gambie eh, ñun dañooy wax ne toujours information doole la mhm. kon ñu ngi la cee gërëm ite bi nga jël pour ñëw ba fii bugg a waxtaan ak ñun politiciens yi dafa wone ne senegal mhm. daf ñu ñor o Gambie dafa ñor sénégalais yi tamit ndax ñun ñoo dëkk ak lu fi mun di nekk rek. Mm. ñoo koy bokk kon ñu ngi laa dalal ci biir Gambie. honorable ni euh, ngi ci njeexitalu lii nga xam ne moo di campagne bi benn semaine moo ci war a des tey boo doon xayma di ko nat ci bilan lan nga jàngat ci biir campagne bi. waaw campagne bi jàngat lañ ci lu bari gannaaw wër nañ presque Gambie yëpp. Mm-hmm. gis nañ lu nekk ci nit ñi ak lan la nit ñi di xalaat am nañ fi ay eh, issue yoo xam ne ni jàkkaar eh, wantel nañ ak ñoo loolu mhm. waaye balaa maa ñëw ci loolu damay wax rek ne maa ngi gërëm Gambien yëpp ci welcome buñ ñu welcome ci waxtu bu nekk ak fuñ mun di dem mhm. yaakaar am na euh, te incha allah amuñ ñaari xel bu ci yàlla àndee ne victoire bi suñ bos la waaye euh, ci biir campagne bi euh, jàngat nañ ci ay jafe-jafe tuuti ci loo xam ne ni bind nañ pétition ci Independent Electoral Commission bi parce que élection bi nuñ ko gisee mooy di utilité xaalis bu bëri surtout ci wàllu parti président bi euh, te suñ loi réew mi ak loi électorale bi daf ko nanguwul ci waxtu élection te ñu ngi koy gis chaque jour te ñu ngi am information aussi ne ñu ngi génn pour jënd ay carte loolu nag euh, xam naa rek dinaa am ak élection euh, observer mission yi ay réunion ay ay waxtaan dinañ ko euh, prouval gaay euh, bu ko defee ñu xam élection bi ñu ngi expect ñu ngi yaakaar te di xaar mboolem doomi Gambien koo xam ne ne jëloon nga voters card na nga ñëw wote bu loolu manqué rek de dinañ xam ne am na lu xew parce que yaakaaruma kenn dina jël carte woote yaa ngi dund dayuloo te ren lañ joxe carte woote yi ñu jëloon. itte bi ñu jëloon sawarte bi pour dem rang suba ba ngoon pour mun a am benn carte vote mm-hmm. eh, bu woote bi jotee ci biir diggante ay weer rek bu woote bi jotee ñu ñàkk ñëw ci élection yi kon dina am lu ko waral loolu nag ñu ngi koy wax depuis léegi ehm, ne dinañ ci bàyyi xel te ñu ngi expect mboolem Gambien boo xam ne ne jëloon nga carte woote rek nanga génn ci ñëw woote loolu ehm, mu ngi ci mu ci biir campagne bi ñu ngi koy gis waaw. waaw leneen euh, lii est-ce que sentir nga ne ci Gambien ñoom am volonté def changement mu mel ni juróomi at yii ñu génn yoo xam la dañ ne mën nañ am leneen lu ko gën est-ce que sentir nga loolu sa bir campagne. fu nekk foo dem rek. luñ lay làkk si soose mooy na wàcc. ay ji ay ji. lu mel na wàcc. kon foog naa moom kenn moo war a wàcc ndax ñun eggaguñ bay wàcc kon nag moom mooy mu war a wàcc ndax foog naa Gambien yi ñoom seen bopp ñoo bugg a wécceeku ndax du wécceeku bii lañu soxla woon 2016 président Barrow dafa ñëw eh, ànd ak coalition partem yi ñu promise Gambien yi ñoom ñetti at la ñuy toog. Mhm. mooy gouvernement transition. bu waxtu bi jotee. <clears throat> <clears throat> li mu def mooy dem uti benn euh, camion bu amee ndox bu tàng gis nañ fu ministre am di taxaw di wax ne ku fi yëngatu dañ lay sotti ndox bu tàng kon pay boobu la amoon pour Gambien yi. Hmm. moom moom yaakaarutoon bés bii dina ñëw. moo wecci loolu yëpp naan moom cinq ans laay def ñu commencé di code euh, suñu constitution bi naan constitution bee ko juróomi at am na seen benn mbokk bu jógee Sénégal ñëw fii. mooy Moustapha Cissé Lo mu nekk président parlement ECO eh, eh, CEDEAO euh, ànd fi ak délégation bu takku euh, wax ñu wax ñu yu rafet ne soo su nit ñi bëree di nekk ay million personnes lu leen di dajale nekk benn ak lu leen di aar mooy constitution bi soo meaning constitution bi dañ ko war a respecté ne xam nañ ne Barrow constitution bee ko may cinq ans euh, su ma tontu nag ci moom li nekkoon wooy Moustapha Cissé Lo ñun africains yi kañ la ñoo jàpp suñ njiit yi ci lu ñu wax oo lu ñu def parce que Gambie bu mu sosoo be léegi kenn na musu fee toog nekk président ñu ne la nga wàcc après trois ans après ñetti at na nga wàcc kenn musul am. kon kii boo gisee ñu ngi ko koy wax moom moo ko wax bu ko waxuloon duñ ko wax man su falu woon kenn du ma wax ne wàccal après trois ans yaa jàmme bu falu woon kenn du ko wax ne war na wàcc après trois ans. moo ko diggoon kon moom mi ko waxoon. Mhm. ñu ko koy fàttali. loolu su nekkee problème kon moo ko indi moo ko dige woon ma ne ko su fekkee ne tamit respect constitution bi la ma ne ko yaa ngi ànd ak ay député yoo xam ne CEDEAO lañ man nag amoon naa kàddu bu ma bugg a wax xaw ma fan laa ko doon waxee yàlla moo leen indi mu ne ma loolu mooy lan ma ne ko su fekkee ne yaa ngi waa respect constitution député guinéen mu ngi nii Alpha Condé mu ngi rey ni yi te ci eh, wecci constitution pour mu am troisième mandat. Hmm. yéen CEDEAO lan ngeen ci wax ndax dégguma leen ngeen dem foofu. te ñu ngi rey fofu nit ñi di tas eh, nit ñi sen sen business yi di ko lakka ñii ñàkk nañ sen kër yi yépp ci constitution pour mm. sout intérêt ben nit ma man dama am disappointment waru len ko accepter kon so len ñëwé gambi fi naa waaw ñun nañ accepter eh, eh, constitution bi ana kay député bi nga andat ak sen délégation bi fi ngeen wara a moy guiné mm. nda ñun ci kenn réagout fi kenn so liti lu président bi wa lolou lañ ko wax te dinañ ko ko wax so comme Barrow li mu promise Gambien yëpp amul dara bu ci def loo xam ne ni dinañ wax ne def na ko ba mat parce que dafa waxoon ne dafay def TRRC bi TRRC bi léegi la pare dégg nañ report bi joxe nañ ko mu ne dafay def jaane commission bi pour enquête alal yaa jàmme naka la ko amee ak e, bagage am yëpp balaa commission bi di jeex jël na alal bi commencé nañ koy jaay. Eh, te li ci gën a daw yaram président doo mun a nekk vingt deux ans président ci réew yow mënoo amal sa bopp dara këram bi nekk Kanilaay sax léegi dañ ko def ami eh, camp ku loolu warul nekk ndaa baroon na xam ne moom li moo doon bañ yëpp moom mu ngi koy def tey. ah bon tax nga wax loolu tey booy tiire bilan wu bilan wu Adama Barrow da ngay jàpp ne lim dën ay ay yëpp mi ngi koy def tey. moo gën a bon sax. parce que moom bu mu toogee bu mu toogee force kiram yi la njëkk a samp yaa jàmme defutoon noonu yaa jàmme at least balaa muy defaraat kiram jëloon na ko ay at yaa jàmme li li ko njëkkoon a ñor mooy bu mu ñëwee nekk président xam dafa coup d'état 94. Mm-hmm. Eh, dëkk yu réew yu bari mere ko sanctionné ko. Mm-hmm. comme ni nga xamee rek biir Afrique ñu sanctionné ko mais ci biir naa ñaari at transition government bu mu def sampoon na ci lu bari defoon na ci ay école def na ci airport bi. samp na ci ay hôpital defar na aj bi def na lu bari kon su fekkee ne yaa jame mun na def loolu et puis ci kaw loolu ñu ngi ko sanctionné kii toog bu mu toogee dañ ko adduna bi yëpp a ko welcome façon alal bu nekk dugal nañ ko Gàmbi ba léegi gannaaw teg xeer ñun gisuñ dara lu baroo def kon nga bëgg wax si juróomi at def ci dara baroo la fi def ganaaw wax yu rëy daal man na ko wax yu rëy ak bàkku loolu nag wax leen ne man maa ko wax te loolu moo fi nekk Gambien dañ am disappointment jaane commission bi balaa muy jeex jël na alal yaay jàmme bi jaay ko et puis mu ut koo xam ne ni lu ñuy wax xaw ma courtier ngeen koy wax xaw ma médiateur ku leen di jaayal bagage yooyu te ñu am fii AMRC ñoo xam ne ni loolu mooy seen responsibility ci lu mel noonu. fay kooku million millions dalasi ne kooku moo leen dimbale jaay bagage yaay jàmme yi te am nañ institution boo xam ne ni ñooñu ñu ngi leen di fay weer chaque mois. liggéey nañ liggéeyu ñu leen di fay weer hmm. te ñoom ñoo waroon a jaay xëy na su fekkee ne jaay day am ñoom ñoo ko waroon a jaay jaarale ko si ñooñu mu dellu eh, balaa mu ko doon jaay dañ waroon a soppi report bi ñu yóbbu ko ci tribunal bu gën a mag bu ko defee ñooñu joxe ord pour ñu mun a jaay bagage yi loolu yëpp amut ñetteel bi dafa waxoon ne security sector reform day defar suñ security ba léegi loolu amut wax na dafay defar civil service sector reform ba loolu léegi amut mu ne constitution Gambie bi fi bi fi fekk moom bi tax moom mu falu mooy constitution quatre vingt eh, quatre quatre vingt. seize eh, non non c'est dix sept. quatre vingt dix mu ne ñu ne boobu baaxul ñu ne constitution Yaya Jammeh la ñu ne dañooy defar bu bees defar bu bees boobu dépense nañ ci cent seize millions dalasi eh, ñiñ ko sasoon wër nañ Gambie yëpp wër nañ Europe yëpp wër nañ Afrique yëpp mbooleen fu doomi Gambie nekk contacté nañ la. Uh-huh. pour nga yow it nga indi sa xelaat ci affaire constitution bi parce que ñu ne dañ bugg a make sure constitution boobu eh, bu Gambien la. Gambien yee ci wax seen kàddoo ci nekk constitution bi bu mu ñëwee lu ñoo wax rétroactivité mooy euh, nee nañu mandat lay am. mandat à des cinq ans ñaari at eh, ñaari eh, juróomi mandat yu cinq ans la waaw ñaari juróomi mandat yu cinq moom comme ñun nee nañ fa cinq ans bii nii ci dafay bokk ci eh, mandat bi ci mandat waaw loolu moo leen neexul d'accorduñ ci loolu ñu ñëw saboter constitution boobu buñ ko indee ci néegu député yi ministre boo xam ne ni moom moo présenté dossier bi ci ci parlement bi daf ko présenté waaye défendre ko. fekk am na ay député yoo xam ne ñoom déggoon ak ñoom ba pare ñu sànni eh, eh, constitution boobu yàq alal boobu ba pare dellu di jubileet di feet naan rendi nañ constitution bi nguuri baro bii ñoo ko def kon Gambien yi gisuñ dara ci baro lu tax ñu war koo topp Gambien yoo xam ne ni Gambien lañ gis Gambia yoo xam ne ne Gambie moo leen ñor Gambia ñoo xam ne ne dañ suñ ëllëgi Gambie moo leen ñor ñooñu duñ topp baro. yow euh, Yaya jàmme da lay jàppale handicap la wala am na loo xam ne am na lu mu yokk ci yow. waa am na lu mu yokk ci man. yaa amul dind ci yow. am na lu. amul lu mu dind ci yow. yëguma ko. mais dafay dafa daal daf la gën a dooleel. daf ma gën a dooleel parce que mboolem euh, euh, ñi nekk ci parti bi ba léegi quatre-vingt-dix pour cent ñu ngi gom ci Yaya Jammeh. cest à ñu bugga ko mbaate ñu ñak ko buga, waaye loolu mom lu am la. mais ñom ñele nenañ jël nañ lu ëpp ci mom ñi arama Baro nenañ jël nañ. waaw am ci waaw APRC lu bare arama Baro ak nitami du du lu ëpp ci ya jamm rek lañ jël pour ñom jël nañ Gambie yëpp ndax ñom dinañ bes bu nekk ñu ngi wax lu leen neex. Hmm. waaw comme na ñom ñom mom seen gemeñ lu leen neex lañoy wax waaye li am Gambie gépp gis nañ ko hana barki dembare buma joge ci àll bi dugg ci eh, kombo fi Gambie yeb gis nañ ko. Mm-hmm. Eh, xëy na lu lu tax eh, yenn feñu sa comme li ma fi excès goudi te goudi wonna waye nit ñi wara tok be 5 ci goudi di taxaw o 5 heures ci fajar di taxaw di ma kon lolu commitment la lolu buga buga la la. Mm-hmm. lolu du kon jamme amna lu mu parce que parti APRC du parti bu ndaw parti boo xam ne ni dafa jiite réew mi foofu vingt deux ans hmm. te jàmme mu ngee dund ba léegi ñu ngi bugg a jàmme ba léegi ñooñu jàmme la ñooy déglu du kenn hmm. lan ngay tontu ñu ne warul participer ci biir campagne bi parce que dafa teg nga ay waxam ñu ne <laughs> ñoom ñu mer ñu ne dañuy saisir commission bi parce que warul bokk ci campagne bi. waa xam nga ñoom dañooy gënt amul benn loi ci suñ loi bi ak ci loi électorale bi bu teree benn doomi Gambien. Mhm. ak foo mën nekk ci adduna bi. Eh, nga participer ci politique. amul boobu waa amul. kon jàmme be léegi doomi Gambie la doomi réew mi la. nangooguñ nationalité am wuñ ko benn tribunal bañ ko convict kon Gambien la. am na benn benn même droit bi ma am pour taxaw ci political rally di wax. Mhm. droit boobu la am pour taxaw eh, pour ñu ñu mu moom mu wax ci politique. droit bi baroo am boobu la boobu droit la jàmme am. so amul ken ko xamne ne war nañu mëna téré tere motax bu waxé lolu mané ko man am aw awma ak yow wax waaw aw ak yow wax te bu soobé yalla jàmme dina wax suba te jàmme waxon na parce que dafa ne woon su su si suma réunion oo si suma meeting eh, dina ma woon loi bi eh, dëkk bi dafa am loi be pare dëkk bi dafa am gouvernement mané ko ah baax ma ngi xaar wayna suba jàmme dina wax Euh, rapport bu génn nag. independent independent electoral commission bi bind nañ ma. bind nañ la luñ la wax ñu ne ñu ne loolu jàmme waxam disturbance la ñu ne day day xatal nit ñi ma ne waaw xanaa Amat Ba mooy wax day xatal nit ñi nañ ma waxagum benn section si constitution bi mbaate si electoral ak bi fan la loolu tere bon doomi réew mi war a wax ci euh, ci ci campagne te et puis euh, Papa Ali dañoo dañooy wax rek. Mm-hmm. jàmme bu mu fi jógee ba léegi presque jàmme waxul ci affaire politique. Mm. waaye dégg nañ toujours ay audiom ci di waxtaan ak militanam yi kon xanaa foofu lañ ko waroon a tere foos ñaareel bi baroo ci boppam mboolem koo xam ne ni waroon na jël effort pour liggéey ak APRC baroo moo waroon a mujjee def loolu baroo moo waroon na mujjee def loolu waaye moom moo fi njëkka wonee ne moom dafa bugg a liggéey ak Yaya jàmme comité boobu ñu dem wax ko ne peut-être xëy na wax nañ ko lu xew mbate waxuñ ko lu xew waaye luñ dégg mooy wax nañ ko ne Jammeh d'accord na ci Jammeh yëg ne ko Jammeh bu mu génnee mu ne yeggu ko bokku ci te du ko supporté mu jaraloon Adama Barrow mu jóg fii dem ba Kanilaay di nemmeeku famille jàmme di waxtaan ak ñoom yëpp pour neexal jàmme tey kooku bu dellu sewaate naan kooku warta waa man si suma réunion xam nga loolu waxi ku daanu si saret la Barrow nag xaw ma xaw ma si saret la daanu waaye ndax peut-être si puus puus sax ndax saret moom dafa xaw a kowe <laughs> waaw waaw euh, ñëw ci euh, am na rapport bu génn tamit rapport boobu mu doon ci mbiru Yaya Jammeh est-ce que changé wul léegi li nga xam ne moo jëm ci wàllu campagne bi. ñi gom ci Yaya Jammeh ngi gom ci Yaya Jammeh. Hmm. rapport bu génn ñoom. rapport bu neuf mois avant waroon na génn. waaw rapport bi génn na xamoon nañ ne day génn. Hmm. rapport boobu comme defar nañ commission bi mooy TRRC bi xamoon ne dafay génn mais ñi gom ci Yaya Jammeh war koo support ñooñu dinañ ko support waxtu bu nekk hmm. waaw. alors ci wàllu koom-koom ban bilan ngay jox Adama Barrow parce que dama lay dégg say wax nga ne da ngay xeex li nga xam ne moo di corruption. waaw baax a baax ak tamit euh, fexe ba booloo Gambien yi ñu doon benn damay fexe lu tax nga def accent ci wàllu xeex li nga xam ne moo di corruption. waaw corruption corruption buñ gis Gambie fii foog naa 65 ba léegi mosuñ koo gis ci nguuri Adama baro moo tax nag Pape Ali man dama jaaxle ci nit ku ñuul africain yi foofu laa koy jëlee parce que tey man maa ngi toog fii di wax affaire corruption même façon système bi ñoom loolu lañ doon wax fii ci nguur yaa jame vingt deux ans ñaari fukkee rak ñaar tey ñoom bu ñëwee ñu def fi corruption bu yaa jame si boppam mosul ko fee def parce que amul kenn koo xam ne dégg nañ le dàq nañ la fi liggéey ngir danga nga corrupt waaye corruption bi moom ci biti la nekk parce que ñemewut a daax ak kenn ndax ñom ñëpp ak europe su fekke ne ñun ñëpp ñu ngi bokk ci ben kër ya ngee buub ki di buub kenen di buub yow kan mo la kan mo fi ñemeñ ñu daax kenen parce que ku nekk mu ngi ragal pour bu la wër té gis nañ fi minister of health taxaw na ci ñeen gi député yi euh, c'est la première fois ci ci history Gambie té xamna du Gambie kese moy wax na dëgg-dëgg nguur gi ñun dañ corrupt mu admin ne corruption dafa am ñu dellu minister of um, fisheries ñoo xam ne ñoom ñoo war a yore wàllu napp bi. napp bi. Um, yoon yu bari député yi ñu ngi koy laaj yan d'accord ngeen am ak Sénégal ci affaire yi napp ni gi mu ne amuñ benn d'accord. ci yoon yu bari mu ngi koy invité ba ci finalement bi mu accepté ne waaw d'accord amoon na te gis nañ fi um, yu egg nañ ne ay d'accord yu bari la ñu signé. Mhm. bu affaire bi commencé feeñ bureau bi lakka naka la bureau bi lakkee xamuñ. mais bureau bi lakk na benn dossier génnatul kon corruption dafa bëri fan yi ñu ngi gis affaire essence bi euh, euh, ñu ngi ci arrêté ay ay fiw nit waaye ñoo xam ne nii dañ dañ convince Barrow ne ñun mun nañ indi essence ci réew dëkk bi wàññi ko ba sax wàññi ko ci prix boo xam ne ne amul ci international world bi xam nga loolu Barrow moom bu ko déglu woon sax first time dafa waroon a xam ne lii moom munul nekk tay ci problème yoy lañ nek kon corruption dafa bari fi te dinañ ko xex parce que ñun kiif place taxul ñu ñew liggéey moñu taxajuk tax a te seet nañ exemple yoy ñaaral bi ci walu limay wax ne Gambien si fuñjar ñu bolo nek ben kër sax mënuloo koo développer su ben eh, su su eh, su unity amul fofu te ñun fu mu nekk baro ak système am bi dañ diviser nit ñi torop torop torop. façon politique bi ñun mosuñ koo xam ci Gambie politique tribalisme ay xeet ci politique yoo xam ne ni ñu fu nekk nguur nguur ngi ma première gis nguur guy génn di fenal nit ñi du leen wax dëgg pour ñu am support mosuma koo gis man dama foogoon ne nguur ci liggéeyam lañ ko lañ nit ñi waroon na supporter mm-hmm. nit ñi gis liggéeyam nit ñi gis lan la def nit ñi am encouragé si ñoom eh, eh, courage si ñoom bu ko defee ñu sànni leen carte waaye tey ñoom ñu ngi ut fu nekk ay ay ay ay ay parti pour ñu ñëw bokk si ñoom ñu ngi war fu nekk di juus xaalis am na ñoo xam ne ni génn nañ wax ne Barrow jox nañu nangam Barrow jox nañu nangam Barrow dig nañu moto Barrow dig nañu nangam te lii yëpp loi bi daf ko nanguwul surtout ci waxtu campagne. te ñoom ñu ngi koy def. ba pare di nga gis ku dem si nitam yi ku dem par exemple dañooy wax ne benn nit dem na ci olof yi parce que ñu ngi amé vidéo bi té lolu politique bu tilim la bu bon la mu dem wax olof yoy né Mama Kandeh ak baro ñoo jégué ben place parce que ñun suñu dëkk ay sorewuñ Barrow woo na ko pour ñu liggéey waye Mama Kandeh daf ko né da ngay daaxe sa cabinet bi yëpp mooy sa ministre yépp nga indi poli kessé dem wax ko ci xéet bo xamné ni duñu ñu duñu pol kon xam nga politique tribalisme bobu dafa tilim té mom xamna mom mi ko wax mënul nek dëgg. waaye keneen beneen xelal boroom xel bu ko déglu xam na ne loolu mënul nekk dëgg parce que si ci àdduna bi amul benn euh, ci Afrique amul benn euh, euh, cabinet bu am boo xam ne ni benn xeet moo ci war a nekk mënul nekk kon loolu politique bu tilim la politique bu gaay def bu gaay di def politique yi xaajaale la kon ñun lu ñu gëm mooy unité man nag suma gouvernement damay wax ne toujours démocratie kenn moomu ko démocratie tubaab bi moomuñu ko démocratie ki ko moom mooy boroom xel ku am aîné bu rafet ci réewam ku bugg transparency ku aîné mboolem moromam jàmm ku respecté keneen ak ku mun di doon ak loo mun di mel lii mooy démocratie kii moom moom démocratie démocratie tubaab moomu ko nit ku ñuul moomu ko kenn moomu ko mm-hmm. waaye lii kii moom moom démocratie moo tax nag man si suma nguur damay wax ne dina make sure ne ku nek dina bok ni may def moy dina make sure ne ci suñ constitution dinañ fa duggal lo xamne ni president bu fi nek da nga am pour opposition yeb ñaar yon ci ben at bi nga waxtaan ak ñom ndax man dama jóg mané ne la soxla nañ ma jox ma liggéey len Gàmbi hmm. man ma koy dakh ousenou Dabo ousenou Dabo neena mom mokoy dakh Baro Baro nena mom mokoy dakh khalifa Sall mais ñun yeb ben rew mi wax kon lan mo fi xex bi lan mo fi jar xex bi su fekkee ne bee lañ réew bi moo ñu ñor moom lañ bugg a lan moo tax mënuñoo toog ñu boole suñ xel yi ñu find out lan mooy suñ problème bi réew ñu bokk ko waxtaane bu ko defee ñu bokk eh, ut solution lan mooy solve suñ problème si man dama ne tournée boo xam ne ni ñun ñu ngi koy wax mid di farmasto mooy dem di nemmeeku béykat yi mm-hmm. waxtu bu nekk at bu nekk waaw di waxtaan ak ñoom man su may dem Bugana Andak andak suma na tangoy political party leaders yep parce que yëfi réew mi la constitution be ko laajte yëfi réew mi la du yëfi Mama du yëfu parti mamakande bi kon ki ut réew mi warna xam lan la euh, domi réew mi di jankolantel warna xam lan la domi réew mi di soxla warna xam lan moy sen problème euh, tournée yi ma gis ñom ñu ñuy def fi moy diw na ci parti nangam dem na si parti nangam jiw dogee na si parti nangam ñëw na ci parti nangam ta tournée bi du par euh, tournée politique warul nekk tournée politique moo tax man damay xelaat ne su fekkee ne man la damay dem damay ànd ak opposition yëpp boobu amut kenn kuy wax ne par diw jógee na si parti nangam te duñ ko politicize dama bugg a ñooñu déglu doomi réew bi comme man li ma leen di dégloo ndax place bi moomu ma ko gambiyee ko moom tey maa nga fa rek ëllëg dama fay jógee keneen ñëw kon keneen ku mun a ñëw moom it war na xam lan mooy problème réew mi. léegi tey jii bu yàlla defoon nga doon président de la république bu Gambie sa juróomi première décision lan lay doon. su ma juróomi première décision force mooy affaire santé santé problème la ci Gambie mhm. ñun yëpp gis nañ ko président Barrow xam na ko mais benn yoon lañ musut a gis président baro mu dem visite benn hôpital ci biir Gambie musul am. te gis nañ fu ñoo mi, GoFundMe mooy kaay jale ñu pur xaalis. pour jënd ay gants pour gloves pour suñu hôpital yi musul am ci Gambie gis nañ ci ay jigeen ño xamné ne ñu ngi défar ay vidéo ci hôpital ne ak lal yu ndaw yu tuuti yoyu jigeen yoy ñetti jigeen ño ben lal ak sen ay lire musul am ci Gambie tey demal ci hôpital bu la neex ci bir Gambie garab bu correct sa amuñ ko bir Gambie kon loolu constat bu rëy la ci man. ci wàllu hôpital yi l' boo xam ne ni tey UNICEF wane na lu mut cinquante mille xale cinquante mille xale ñoo xam ne ni bàyyi nañ école parce que seen kilifa yi mun a ci ñoo fay eh, eh, eh, seen école ñoom baro bu ñoo ñëw fii free education la woon ba grade benn xale du fay benn dara ci benn école taami yaay jàmme kon ñoom baro bu ñu ñëwee tey ñu mu am cinquante mille xale yoo xam ne nii ñu ngi bàyyi école te ñoom ñooy magi ëllëg ñoom la ñu yaakaar ne ñii dinañ war a liggéeyal réew mi ëllëg ñii ñoo war a tabax réew mi ëllëg ñii ñoo war a yóbbu réew mi ëllëg te boobu ñooñu amoo dootu ñoo am xam boobu kon mel ni yaa ngi delloo réew ci gannaaw kon loolu constant la ci ñun. te et puis bi sax fu mu ne nii <laughs> boo te te ñàkk bi nekk biir Gàmbi chaque waajur suñu amul doole dootuloo fa mun a jànga te loolu yëpp amu fi woon lii yëpp dinañ nekk ne dinañ ko delloowaat. ndax xale yi soo buggee defar réew réew mi fu jaar ñu am boroom xam-xam ndax xam-xam mooy yóbbu réew te léegi su fekkee ne yow yaa ngay rey xam-xam boobu kon expeguloo e, réew bu jàkk ci kanam den ñu ñëw si suñu agriculture agriculture bi e, toujours damaa wax ne bu Gàmbi sosoo ba léegi ñu ngi ci mbéy mi waaye li ma wax mooy baadoolo mënul béy ku amul dara mënul béy te joxe naa leen exemple may leen nga yore sa mbaam ak sa benn usine ak sa benn cumuwaar nga dem ca tool yi ak kele yore tracteur yore bagage am yëpp seen am-am ci ndawet bi jeexee du nekk benn kon miinin baadoolo mënul béy kon fuñ jaar ñu wécci mbéy mi fii boo sootee sootee Europe tey douze ba pour cent ci seen population ñoom ñoo nekk di ci agriculture bi hmm. mun nañ dundal seen bopp jàppale réew yu Afrique yu bari Amérique même chose mais ñun fii quatre-vingt pour cent ñooy dem ci tool yi mënuñoo dundal sañ suñ bopp ba léegi te et puis bagage yi ñu amee Europe kenn waxul leen tamit mënuñoo dox fii ci biir Gambie. Hmm. o mënuñoo dox biir Afrique lan moo tax loolu mënuñ ko fee indi lan moo tax ñuy dépense dépense yoo xam ne ni daf ko jaru dara ci loo xam ne ni du ñu indil dara ñu bàyyi ñu war a bàyyi loolu war a concentré wu ci affaire naka la ñoo amee dundin bu rafet ñun jii di si dañ ne incha allah dinañ wecci mbéy mi. te dinañ make sure ne noor ak nawet mbéy dina am parce que soo buggee wàññee njëgu ceeb bi. bu ma taxawee tey si réunion oo si benn rally oo si meeting ma leen waaw man de su ma toogee dinaa wàññi saako ceeb si juróom-ñeenti téeméer ceeb boobu liggéeyuñ ko fi ceeb boobu man moomu ma ko. ceeb bi dañ koy indi kon xam nga maa ngi wax nit ñi neex rek kon suñ buggee xeex loolu fuñ jaar ñu war a invest ci agriculture bi. loolu par force la euh, Maputo agreement bi dañ ne réew mu nekk war na joxe dix pour cent si sa national budget. Hmm. jàmme da doon dem ba six pour cent kii bu mu ñëwee deux cent la def deux comme cinq pour cent. deux pour cent deux pour cent loolu dellute gannaaw agriculture bi loolu du ñu yóbbu fenn jàmme bu mu fi nekkee jëndoon na ay tracteurs yu bëri jàppale ko béykat yi hmm. ñoom bu ñu ñëwee dañ nangu tracteurs yooyu si béykat yi jaay ko. léegi ñu ne ñoom dañoo dem jënd ay tracteur boo leen koy may Pape Ali loolu euh, lu ñuy wax ne upside down dafa ëlbatiku uh-huh. parce que luñ doon yaakaar si ñoom jàmme bàyyiwutoon tracteur yooyu kanin laay ne leen moom moo leen moom daf ko jox béykat yi ne leen jàppale leen seen bopp ñoom bu ñu ñëwee li ñu waroon a def mooy ñu ut leneen yeneen tracteur dolli ci luñ fekk foofu pour béykat yi mun a am moyen waaye déedéet ñoom dañ ko nangu ci béykat yi dem jaay ko ñu ne léegi dañoo jënd ay tracteurs dégg naa jënd nañ cinquante tracteurs mais lu ñu jël ci nit ñi ëpp na huit cent kon ñoom kañ la ñoo jënd ba egga foofu. loolu dellu gannaaw bu la ci réew mi dellu gannaaw bu rëy la ci béykat yi te ñoom bu ñu toogee ba léegi boobu ñun dañ doon jaay gerte waaye léegi yàlla ak Sénégal ak suñ lu moy Seko demal Seko léegi tey Seko ubbi. bugg naa journaliste yi ñuy wër ci àll bi ñu gis lan moo fa nekk. buñ toog fii rek parce que am na information bu bari boo xam ne ne mu ngi ci àll bi fële te doomi réew mi war nañ koo xam adduna bi war nañ koo xam waa àll bi ñu ngi sonn dañoo béy ba nawet bi jeex ñu bàcc seen gerte duñ am fuñ ko jaay ba pare nag ñu naan soo ko buggee génnee biir réew mi dinañ la arrêté yow mënuloo jënd sama gerte du ma ko jaay fu ma fu ma fu ma fu ma cay amee dara mënul nekk ñoom moomuñu kenn kon ñun dinañ xeex ba gis ne dund bi cher bi wàññeeku na ci biir réew mi te amul neneen nu ñu koy defee gannaaw dooleel béykat yi. <laughs> léegi euh, bëgg naa tamit euh, peut-être mooy dernière question bu ñuy aborder relation Sénégal ak Gambie xam nga gis nañ ne Sénégal dafa lekk thème de campagne ci biir bi ndax présence su euh, ñi nga xam ne ñoo di militaires yeeg yooyu fii yow ban jàngat nga def ci ak nan lañ war a mën a def pour taxal diggante Sénégal ak Gambie. waaw man question bu ma neex la question boobu foog naa question yëpp bii ma ci gën a neex. Ah, lu tax. parce que dafa am li ma wax si suma ay meeting. Mm-hmm. am na sénégalais yoo ko déggee déggin bu rafetut xëy na. Mm-hmm. waaye man xooluma botu kenn li am moom laay wax. bu bu ñu indee dernier eh, groupe bu fi ñëw mooy eh, six cent vingt cinq soldats jógee Sénégal dama taxaw Farafeñe ma laaj makisal ndax président Barrow waxut ko ne. ñun amuñ paracetamol si suñu hôpital ndax président Barrow waxul ko ne ñun lal ci l'hôpital sax amuñu ko ñun soxluñu ñu mm, absolument mais nekkutoon loo xam ne ni maa ngi doon ñaan Macky Sall dara ñaanuma ko dara dama koy wone rek suñu njiit. luy seen priorité dafa féel. Mm. suñ priorité mooy loolu du armée ndax ñun nekkuñ ci ger diis naa ambassade Sénégal bi di ci jéem a tontu ne Gambien yi dañu teel a fàtte. déedéet Gambie yi kenn fàttewut diggante Gambie Sénégal gis nga diggante Gambie Sénégal dafa war a ratax waaye ñi ko war a dimbale mooy nguur yi gouvernement yi ñoo ko war a dimbale. mais eh, ordinaire personnel yi nit ñoo xam ne ne nit yi ordinaire yi la ñooñu amuñ problème ak kenn su fekkee ne problème mu ngee feeñ foofu rek si gouvernement yi lay nekk. amul benn président bu mun a toog Gambie ne du liggéey ak Sénégal munul nekk. ñun ñoo bokk te ñun jafe-jafe buñ fi mun a am rek Sénégal moo njëkkaay si su ngeen dégloo si suma campagne 2006 bu Ebola bi génnee Guinée nit ñi commencé den waa maye leen fekk Ebola ñëwut Sénégal Gambie du ko am ren et daaw bu Covid 19 bi ñëwee Sénégal seen first case bi buñ ko annoncé keroog laa def press release ma ne Barrow na bàyyi mboolem lu mu doon def. mu ñëw toog ak cabinet am ñu sàkkal pexe léegi léegi. affaire Covid bi parce que egsi na. comme Sénégal am na ko. te exactement loolu moo am. kon Sénégal Gambie ñaari ñi ñoo bokk mais li ma bugg a xamal ni ñi mooy Sénégal réew boppam la. Sénégal dañ am seen indépendant 1960. ñun ñu am suñ indépendant 1965. kon ñaari réew la ñoo xam ne ni ñoo bokk lépp. suñ làkk xeet yi lu nekk ñoo ko bokk loolu yaakaaruma ne am na benn président buy toog gàmbi ne du liggéey ak Sénégal te li important mooy make sure diggante ñaari gouvernement yi ñu rataxal diggante bi ba di dernière personne mu yëg loolu parce que Gambie démb ak Sénégal ak Gambie tey ak Sénégal bokkul de dama lay wax dëgg euh, am na ñaari video yi ma gis daaw jékk Baro mu ngi génnoon di doxante ci côté hôpital am jigéen bu toog di jaay gerte yore taabulam am keneen ku ñëw mu bugg a photo sécurité bi bu ko photo mu ne ko yow lan nga foog yéen sénégalais lan ngeen foog dinañ ko nataal kii suñ président la dinañ ko nataal benn mu ne xam nga kooku moo wax nga façon man bu ma dégloo loolu rek ma ne am nañ problème hmm. parce que kooku moo euh, réacté noonu waaye xëy na ñaata Gambien ñooy xelaatee noonu gis nga lu tuuti lu nekk da nga cee bàyyi xel ma gisaat bu ñu defee couvre-feu bi fii affaire Covid 19 bi. am Sénégal am am parti bu amoon am soldat du Sénégal yi fa dem léegi ñu war leen a arrêté ñii dem di caméra soldat bi naan ko bu ma caméra dinaa la caméra yéen Sénégal lan ngeen fokk xam nga kooku ak jigéen bi bokkut. kon Gambien yi xëy na dañ dem ba gom ne Sénégal dafa bugg a nangu Gambie. parce que tey ñoom ñoo contrôle suñ state house bi ñu ngi am ay check point bu buyaam xam nga euh, loolu yëpp boo ko boolee loolu mooy indi xelaat yooyu kon ñoom ñaari gouvernement yi comme ni ma ko waxee ñaari gouvernement yi ñoom ñoo war a liggéey rataxal diggante bi ba laas passé bi kii bujjee mm-hmm. mu yëg ne lii day dafa ratax tax loolu moo fi nekkoon fii Gambie suñu fi amee problème amul fenn fu ñu dem ganaaw senegal mm-hmm. kon kenn warul bañ Sénégal man day paré na ligue ak Sénégal respecter Sénégal respecter souveraineté si Sénégal mais Sénégal day respect ndax ma respecter respecter souveraineté bu Gambie li rek mo fi mëna nek man demoon na man ñi accusé nañ accusé nañ ma 2016 parce que dama demoon bene man soxlu ma armée bu rëy bu Gambie parce que man dama am sécurité naturelle sécurité naturelle bi mooy lan Sénégal ñoma ma côté yeb Sénégal mu neex leen dinañ ma garder mu nakar leen dinañ ma garder mm-hmm. loolu la yàlla def lii kenn amu ko ci benn benn fenn ci adduna bi kon suma soldaar yi damaa doon doof soldaar yu néew lu ci def ma introduce sécurité bu doy ci bi réew mi soldaar yi Gambie soldaar Sénégal ñu am joint operation joint operation laay nekk yaa ngi dégg kon lu rafet rek la ñu xalaat diggante Gambie Sénégal mais am na soo waxee dina am ñoo xam ne ne dinañ ko déggee neneen ni nga ko waxee wut waaye du ñu teree wax na lu ñu war a wax dinañ ko wax waaye amul benn eh, ñaaw njort oo xol bu ñaaw xel bu ñaaw bu ñu am suñu diggante ak Sénégal gannaaw waxtu bu nekk ñu ngi leen a gërëm mais Gambien yi majorité Gambien yi tey soo ko seetloo even ñoo xam ne ñu ngi def studies buggatuñ arme Sénégal bi ba Gambie buggatuñ ko mais du folti Sénégal Sénégal defuñ ko de. suñu gouvernement ñoko def suñu président moko def parce que ah, Sénégal Sénégal du jóg rek indi fi armée té neexul président té féka président bi la cawu ko kon président bi mom mo créer situation bobu yëpp bu Sénégal motax man duma ma Sénégal motax mo wax Macky Sall ne est ce que Baro waxul la kon du affaire bileem Sénégal lool la bugg a président Baro mom moko def té do mëna nek ci réew nga né yow gomuloo sa armée té sa armée bi doomu réew lañ su doon man maay baroo premier jour bu ma ñibbisi wallahi keroog boobu laa doon gërëm suñu armée Gambie laa leen doon ekkati ci kaw gërëm leen parce que boo gisee benn bal tàkkul bu seddaaw na na na nañ indi adduna bi yëpp ñu bugg a attaqué Gambie su fekkee ne Gambien yi bugguñ da ngay rey Gambien yi yëpp be mu jeex tàkk waaye bal dana tàkk mais seddaaw dugg si nañ benn bal tàkkut nekkul na dañ ragal xëy na mun nga ne laa ëpp doole nga rey leen dañu jeex mais ragaluñu woon man maa fi oote presse conférence maye leen lii du problème mu armée diggante réew ak réew lii problème yi suñ internal problème la nañ ko sol fii maye leen kon jarul ñuy utiliser suñ armée bi pour xeex fenn te armée Gambie dañu ñii bu ñu ñëwee dañ leen welcome kon Barrow li mu waroon a def mooy moom it bu mu ñëwee mu gërëm leen parce que mënoon na ñàkk am. mënoon na ñàkk am te bu amuloon tamit ay nit rek na ñooy dee mënoon nañ jël nguur gi bàyyi par force mais dina am ñu dee. kon su loolu ñàkkee rek kon am na ñu nangu ñi nangu ñooñu nag doo leen war a fàtte te ñun suñu armée bi ñu ngi fii di gor këriñ ñu ngi lakka këriñ te ñu nekk doomi réew léegi ñoom di gis yeneen doomi nekk fii ñu del leen all facilities lu leen neex la ñooy am ci réew te ñoom ñu nekk doomi réew mënuñ fi am dara ba mujjee gi dañoo dem si àll bi di lakka këriñ seen bi loolu neexut. Mm-hmm. te gis nga lii yëpp dafa contribuer ci xëy na hatred boo xam ne ni xëy na daa mu ngay ñëw te warul nekk blé muñ Sénégal ci benn boor suñu président moo ko def te warul nekk. dëgg la Mama Kandeh maa ngi lay sant di la gërëm sa kàddu gu mujj lan lay doon parce que xam naa ne euh, semaine bi mooy semaine bi message yu mujj yi. su ma kàddu bi mujj bi rek mooy dafay dem ci eh, ñaari fànn. Hmm. benn fànn bi mooy ba na Sénégal xam ne ñun ñoom ñoom ñoo bokk amul benn président buy toog fii ne du liggéey ak Sénégal mënul nekk man ma Makande pare naa liggéey ak ñoom Macky Sall sama mag la du suma patron nag déedéet de de sama patron suma mag la. bu ñoo xamante boobu moom nekkagul président bu ma xamante ak moom moom xamul président Baro xëy na ay collègues lañ tey ñoom ñëpp ñu ngi nekk président mais bi ma koy xam. bu may xam ñun ñaar mom xëy mom commencé nay ay ut man commencé guma waaye boobu moom nekkagul président suma mag la kon na dalal xelam ne Mama makande moy mom ak moy benen Sénégalais ku mundi doon ñun pare nañ liggéey ak Sénégal. Mm-hmm. te fu ñaar ñu liggéey ak Sénégal waye respect bi fu ñaar mu nek fa man nak président lay doon wax ko ci suma yi na buuma man duma directeur duma gouverneur li tax ma wax lolu nak président baro bu moy wat fi dafa ne mu ngee nuyu patron am mooy président Macky Sall. my boss my boss. te ñun président la ñu elect keroog sax foogoon naa ne du mut ñaari weer suñ député yi dañ leen waroon a impeach ñu génnee ko parce que Gambie président la ñu sànnil du directeur mbaate gouverneur kon sa moromi président boo ko wax patron yow lan nga kon nekkuloo président kon ñun man su ma nekk président laay nekk comme Macky Sall di protect suma intérêt si réew di protect sama doomu réew di protect eh, intérêt si boot Gambie ak Sénégal bilatéral yi ñoo am yoo xam ne ne mun nga fa mu fa war a nekk dinañ ko dinañ ko def. am mm-hmm. ci ñaari xel. ñaareel bi mooy ñun Gambien yi élection bi jot na ñu bàyyi suñu xel ne su neexee ñun la su naqaree ñun la ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay amut xeet bi amul xeet bele xeet yi wa làkk yi pour ñu déggoo rek la ci làkk mais yàlla. aadama ak awa la bind aadama ak aw boobu kenn waxul la soose la mbaate joola la mbaate saraxula la mbaate pël la aadama mhm. ak awa lañ wax te ñun ñetti ci ñooñu lañ jóge kon yëfu xeet warul ñoo boole warul ñoo jaxase te ñu make sure ne ñu respecté loi réew mi élection bi bu jotee ñu bañ a jaay ñu bañ a génn pour jënd carte yi mboolem ku óolul ku boppam du jënd carte ñi óolul seen boppam bay jënd carte nag na independent electoral commission bi xam ne ñoo xam ne ñoom ñoo yore wàllu wote bi ñu ngi suivre ñu ngi xool te ñu ngi expect mboolem koo xam ne jël na voters card mu génn si sànni carte waaye ay ñetti téeméeri nit lu ñu sànni carte o ñetti eh, nangam na loolu duñ ko accepté kon dafa am lu tilim te loolu maa ngi ñoo xam ne ñoo yore wàllu wote bi ñu bàyyi xel ci loolu gannaaw loolu jàmm kese la soxla ci élection yi ndax at the end of the day jàmm boobu mooy suñ njëriñ. Mhm. jàmm boobu mooy suñ développement. jàmm boobu su amut kon su eboon ñu fàtte lépp dafaa fekk jaru élection am na election observer mission boo xam ne ni mosoon nañ dem Kenya ñëw indi rapport bu ma nekkee député parlement africain. Mhm. man maa nekkoon président commission bi. Mhm. ñu indi ko ñu ne eh, dossier bu rëy rapport bi ñu ne élection bi amoon na Kenya. mais jaar na yoon yëpp jeex na ma weddi leen ma ne leen nañ ma wax lan mooy élection ñu ne ndax dama leen di xeeb may leen déedéet mooy parlement européen bi. Mhm. may leen li ma xam si élection mooy nit ñi dañooy génn ñu dem voter pour seen candidat bu ñu bugg a mu jiite leen. ma ne leen Kenya xam naa rek ne doomi réewi Kenya am na kuñ sànnil woote am na kuñ sànnil carte. te mhm. am na ku gagné. mais si table ngeen mujjee négocier kan moo war a nekk président a kan moo war a nekk premier ministre euh, balaa ngeen toog si table fekk am na ay téeméeri téeméeri doomi adama yu ñu rey am na ay junne nit yoo xam ne génne nañ leen seen kër yi. kon su fekkee ne toog si table mooy solve problème Afrique kon soxluñ élection soxluñ élection après parce que. lu nit soxla. respecté wuñ loolu lu nit ñi soxla lu nit ñi bugg a gis gisatuñu ko lu ñu gis mooy ñu ngi leen a dàq seen kër yi ñu ngay rey ñenn ñi yéen njiit yi ngeen end up ci table loolu soxluñ ko biir Afrique te ñun yëpp gis nañ lu xew Guinée. Hmm. moo tax bu coup d'état bi amee foofu dama félicité euh, colonel euh, Doumbouya parce que man maa fi njëkk a condem lu Alpha Condé doon def man kenn maa ko fi condem hmm. warul nekk mais Pape Ali ñun fu ñu dem kenn kenn xamatu ko Afrique. Alassane Ouattara moom xam na naka la toogee si toogu bi. moom xam na la fan la jaar ak lor ak Gbagbo ba moom mu toog ak fan la fan la ban support la am tey kooku moo dem ba ci constitution bi pour intéressant moom même chose la Alpha Condé def ñun kañ la ñoo mun a jànga si suñ problème yi. yàlla nañu yàlla ne loolu du am Gàmbi ngeen voté. incha allah yaakaaruñu ko yàlla bu mu fi am. le 4 décembre. nit ñi dem voter ji parce que nak gis nañ ne campagne bi quand même ak luñ ci mëna wax amna calme bo duggé mi sentir sax ne fim mu nekk nii am na lu bari, bëri mais nit ñangi génn di def sen ku nekk sa caravane ak sa meeting kon ñu sant yalla ne ni ngeen ko défé ni rek nañ ko di yeggé ci fi nga xamné modi di le 4 nit ñi dem Gambien yi génn nak voter ji li nga wax dëgg la modi di euh, il faut que suñu démocratie pour mo mëna a ci Afrique euh, nit ñi di génn di def tanef di tan kan moy sen njiit. tànn njiit nag dafa compliqué maanaam da ngay jël nit njiit goo xam ne da koy mat euh, ci fànn yu ne kon maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. ci dalal bi ma dalal tey jii di leen euh, dig dajee ak euh, beneen candidat. boo xam ne ci élection présidentielle Gambie la fas yéene bokk incha allah ñeenti fan ci weeru décembre jërë ngeen jëf.